ba bi mi ngi wàññeeku fii gis nañu yi wàññeeku na bu baax euh, donc li ñu war a xool surtout mooy aar dëkk bi pour mu bari ñu amaat kaay yu bëri te comme magal bi ñu si dañuy jóge fu ne te bu ñu xoolee euh, ville bu nekk dakaar moo nekk ville bi nga xam ne moo ëpp cas te ñu bëri na ñëw fii donc euh, pour ñun dañu war a aar Touba Touba moom la ñu war a gën a aar te ci loolu.

nañu aar kilifa yi fi nekk et loolu je pense que ak communication bi nga xam ne ñu ngi koy développé euh, xalif xalif bi aussi mi ngi koy mi ngi koy joxe yooyu yëpp bu ñu ko boolee ak aussi stratégie ñu fi teg yëpp pour képp koo xam ne am nga feebar ñu jël en am nañ yaakaar ni incha allah dinañ mën a màggal ak jàmm ak salaam. waaw li ñu gis dalal suñu xel vraiment comme ni mu wax mobilisation bi moom moom dafa am solo d' parce que mobilisation nit yi organisation bi nga xam ne teg nañ ko mooy ñaar yi nga xam ne mooy njëlbeen bi gën am solo.

parce que février bi tant que dañul si dëkk bi rek duñu bayyi bàyyi donc euh, au contraire motivation la pour ñu gëna yok yokk liggéey